maanaam li ñu naan da ngaa toog cim réew. nit mën nga mm. gis doo ko xam mën nga ko gis doo ko maîtriser fekk bokk na mm. loo xamante la nga xam lu ko raw moo ko xam na ko da toog moo tax dama lay wax ne la Assane mm. noo jàngatee combat Balla Gaye bi mu desee daanaka mën nañ ni vingt quatre heures bi nga gisee open press Balla gis conférence de presse Tapha dama lay bàyyi benn cinq minutes nga wax saxla xalaat librement maam Thierno maa ngi lay siyaar tollu nuyu naa la maa ngi nuyu maa ngi nuyu bu xam nga làmb ji nekk niñ koy bëree. Mhm. làmb bu nekk koy bëree. fi nii maanaam boo xooloon tey Tapha Tine xool Balla Gaye mhm. état de forme bokkul. lu tax Balla Gaye mbërë waaye Tapha Tine bu amee lu muy Tapha Tine jamono bi ñu toll nii mhm. ñu ngi wax VIP. bu ñu wax VIP ci téléphone am di sonné parce que bu waxee téléphone mën na. Ah, waaw waaw man de. kenn la ci suuf yaakaar naa yaakaar naa kii la euh, Diouf la Diouf. Diouf tëjee sa micro. Ah, waaw tëj na ko toog mi ngi ñuy ñëwal Assane ñëwal. waaw man de jamono bi ñu toll nii. Tapha Tine euh, li ñuy wax vi groupe VIP. bu mhm. caaxaan ci man. parce que Tapha Tine bi ko na benn performance boo xam ci bëre ci wàllum xeex mhm. te olof daa wax ni ku yàgg ci njaw di njaw olof dafa wax ku yàgg ci njaw di njaw Tapha Tine bu fekkoon man damaa jege man soxla ma conseiller kenn hmm? parce que dafa am làmb yoo xam ni dafa am làmb yoo xam ni xaat moo koy bëri combat di combat xaat la Tapha Tine warul may Balla Gaye mu ngi toog te du dóor ko corrigé guus. ah. warul léwtoo ñaari léwtoo loxo guus bi jógul. maanaam sas ko Balla Gaye ma déggoon sànq ñu ne. taf Balla warul may tafaatin fu mu yàqee naqam yow sens contraire nga andi au tafaatin moo warul may. tafaatin fu fu mu yàqee naqam. Balla Gaye si làmb tolloo si làmb bi ñu toll nii Balla a kon combat bi combat di ñëw di ko bëri di ko abrégé brièvement ma Gaye dafa war a ñëw dal déglu lire combat bi bàyyi combat ak Tapha Tine parce que amul lu mu ciy gagné Goldo boo boo doon football di champion mhm. ale bi nga jóg trois zéro mhm. retour bi boo amee xel da nga taxaw waaw damay déglu adversaire bi jeu ak moom contre mhm. voilà Balla Gaye loolu la war a bëri Tapha Tine moo warul may Balla xam nga damay faral di wax ne korosé masuwaar xajul ci ngaamu góor. déedéet. korosé masuwaar. dëgg la korosé masuwaar xajul ci ngaamu góor. déedéet xajul ci benn vidéo ma bi ñu toll nii bu fekkee ne mbër mu mel ragal na Bawol wu toolu cent mu bàyyi ngooñ ak bësi. Hmm? Tapha Tine moo waratul tool ci làmb guddi yoo xam warul ragal benn góor. maanaam par force Tafatine dafa war a daan Balla Gaye. karkat bu bees. karkat bu bees tàq. karkat buy segmenté bi. boo demee bi. karkat buy segmenté moteur bi bu doublé karkat bi bu bees bi. sëwër bi la waaye oto bi. Mhm. Tafatine ko rek moom Tafatine ci moom la. parce que xale taay bi baax loxoy dégg na olof te am na doole am condition fii te mën na combat bu yàgg. mais assan lan moo ko dese. Assane. waaw. xam nga laa xam nga laal bi dafa am ay ndaanaan yu fi ne. waaw. Tapha Kandji dafa bind benn commentaire parce que dafa wax yoon su am solo. mooy ba Tapha Tine moo war a attaqué. Balla Gaye na ko nga jox ma benn exemple ci équipe. boo ko dóoree ale ñi surtout da koy déglu ma ne la foofu d'accord na ndax équipe bi attaqué offensivement défensivement équipe bi dafa am ay espace mais Tapha Kandji def nii Tapha Kandji xam nga nag mën nañ wax ci football mais cax la dafa laaj dégg Tapha Kandji dafa bind commentaire mu ne mais Toldo attention boo ko defee équipe bu mhm. mel ni Balla da lay pompe te Balla Gaye xamul xaar waaw mbër mu xamul xaar njëkk ko dóor bu jógee nga day ak moom mbër mu xamul xaar tey Toldo yow bu yoroon jaasi wut si la noo koy def atul dóor. daw daw kon doo daan kenn. <laughs> léegi papa laa damaa yor doom. xam nga tey Tapha uh-huh. Tine gis nga mbër mu mën a bëre. Balla Gaye dafa mën a bëre xam Balla Gaye dafa mën a bëre. te dafa làmb. Balla Gaye boo ko gisee dóor yàq nga làmbam. waaw. Balla Gaye képp ku xoolee carrière Balla Gaye contre Machine. Mhm. ale ba daa jël coup. Mhm. retour ba daa jël coup. contre Bombardier ale ba daa jël coup. Mhm. retour ba daa jël coup. contre Boy Niang daa jël coup. waaw léegi mbër moo xam saa ba jëlee coup. am am tract biir gi yow da nga koy dóor. da nga koy dóor mu xajam na bëri xajam bëri boo xam saa bu la sànnee ñaari laaw boo gëmmee ba mu wax soo ñibbi. Balla Gaye xajam na bëri xajam bëri boo xam ta ñaar laawam yooyu boo xefee boo xefee ñii mu romb leen yoonam bëri performance la waaw li foore nga li waaji foore nga li waaji foore nga xañ ko lool tey Tapha Tine moo war a imposé Balla Gaye ne ko li ma entraîné xajul foofu xajul si yow waaye mënu maa gëm Tapha Tine tey benn affaire Tapha Tine leen koy mere mm-hmm. Tapha Tine guddi ko naxul jàppoo galaaj neexoo ko neexul daan ku ko ci gàllankoor te Tapha Tine bindal naxoo ko naxoo ko mënoo koo daan. Tapha Tine jamono ñu koy nax da nga jàpp ci gàllankoor daan waaye Tapha Tine mu ñëw jël décision taxaw xam nga lan la gars yi war a bàyyi. Mhm. mbër bu mot un quatre vingt dix am cent trente kilo wala cent vingt kilos nga koy wax moytul ci mbër mi man gëmuma loolu. Ah. xam nga lan laay gëmloo xam nga lan laay gëmloo mbër ci man boo daan entraîné mbër xam nga lan laay gëmloo. dama lay teg coono yi nga taxaw ci biir géej bi ma taxaw ma la xoola adversaire bi yow li li nga li nekk seeram nekkul ci moom li nga xam kii xamul ba am soo doxal ci ko bu ko may mu xalaat dama koy demloo moom ci li mu andi ak gëm-gëmam football bu ñu ne quatre trois trois nga def quatre quatre deux da ngay xool espace bi nga xam ne ñii loolu la ñuy footballé ko fàtte couloir bi dëgg la Tapha Tine waru may Balla Gaye man tey su ma àndoon ak Balla Gaye dama koy wax ni am tollootuma fooy bëri di jaay doole parce que Tapha Tine Balla Gaye jamono bi ñu toll mënul lekk lekk lekk lekk bëpp Tapha Tine doole mënul entraîner entraîner bëpp Tapha Tine doole xëy na nag mën na koo pour qualité bëri. mais mais mais ak wax ci làmb. mais Assane Balla Gaye bii ma gis si open press bi xaw ma. Mhm. mais kaw gi loxo yi loxo yi chargé est que. avantage la ci moom charge boobu ndax charge bu ndax charge la boo xamante si xaaral ma ñëw dama xaaral ma ñëw dama lay ndax charge boobu waaw charge la boo xam ne maanaam bu yàgg ci moom tuuti bu mu travail ba nga xam ne du ko sonal ci bi ci kaw wala da hmm. jàpp ne la boo xamante si nii ci dernier moment yi la ko récupérer donc amagul tempo boo xam ne mën na ko utiliser ba mu adapté wu ak yaram bi aussi buñ jóge fa ma bëgg tamit ñu ñëw ci Tapha Tine poids bi mu yor aussi ndax bëreeg ba mm. ko xam ne dafay def mm. ci ndax bu ñu duñkom dajee Balla Gaye génn wala Balla Gaye def yu sewam yooyu noonu ndax Balla Gaye Tapha du des si suuf mm-hmm. waaw est-ce que micro bi daggul allo waaw Assane waaw ngi lay dégg waaw allo waaye Assane. allo Assane ñu ngi lay dégg. réseau réseau bay daw kay. waaw ñu ngi lay ma ne. ñu ngi mhm. moo gën a pare Balla Gaye fuuf. Hmm? waaw Tapha Tine moo gën a Tapha gën a pare Balla Gaye sur le plan sportif professionnel la ñuy waxe Balla Gaye mbërëntaan la waaye bëre doole. combat ba Balla Gaye Tapha Tine Omez Diagne moom moom Omez Diagne moo yàq combat Tapha Tine. Omez. coach Omez. Omez Diagne waaw moo yàq combat Tapha Tine. moo ko yàq waaw. daw rek la xam ci sport ancien militaire la. Tapha Tine dem na États-Unis def mois ñëw indi sax rek. tey Balla Gaye am na am na am na xeetu allure boo am bu dalee ci kaw tafatin ci kale ba ba mu dalee oyof retour retour bi Balla Gaye bu tey bu ñëwee amul doole joo xam tey bu dalee ci kaw tafatin tafatin mën na ko résister tey Balla Gaye bu dalee ci kaw bu ko tafatin résister rek Balla Gaye am na problème mhm. Tapha Gaye même tafatin Balla Gaye même bu soogu tafatin songu mën a nekk songu moom tafatin du ko gis hmm. parce que buy génnee boo yëkkatee yëkkati jugul da ngay da ngay am problème de tafatin tamit fulla am fayda xam ne man génn naa Sénégal dem naa Côte d'Ivoire entraîné naa quatre mois cinq mois liggéey naa doole boo xam ba at bu sublee kii war a jóge sama kanam ngëm-ngëm a indaale dafa war a daan parce que gis nga quatre quatre bu ñu segmenté moteur bi ak quatre quatre bu bees ful bokkuñu bokkuñu vitesse tey Balla boo xoolee six ans yi ñu génn nii Balla defu benn performance chaque combat daa blessé lay wax hmm. chaque combat ñu ne après combat Balla Gaye blessé na Tapha boo xoolee nit li nit li mën buñ ko wax xeebal tey ñi daan bala Gaye ñëpp Tapha Tine leen daan yi bi ko Tapha Tine duma fii Bombardier daam boobu Bombardier bu baax bi la hmm. Elton waaye du ko dóor ba mu mel ni ba mu mel ni super bu super bu damm laam boo ñaa dafa daw ba njob dafa daw ba sàq nit buñ ko xeebal lim mën bala Gueye mbërëntaan la waa doole ji gaa yi foog ci jamono yi ci Balla Gueye nekk fa Eumeu Sène moo gën a coriace Eumeu Sène moo gën a coriace Balla Gaye fuuf duut na Tapha Tine ba gaay génn ci combat bi daan ko mm. Mm. Tapha Tine leen rek moo ko dese mooy màgg ci moo mooy jël d mooy jël mooy lan mu jël décision boppam man tey su ma yoroon Tapha bi damay wax ne samay mbokk man kenn conseil ci làmb ji bu ma kenn wax dara lépp taxaw xaar ma arbitre ne pire ma dox ci kaw waaj fu mu yëngoo ma di mboq ko guus dafa leen guus boobu ma war a taxawloo Balla Gaye are guus fu Balla Gaye yëngoo mu jam ko guus taxaw déglu bu ñëwee mu jàpp ko ba jàpp ko def lim man li mooy làmb tuldu mais mais Balla Gaye tolootul fu ma balaa may ñëw ci ma. waaw Assane su ma la déggee parce que wax tamit dafay toog. waaw sa wax dafay toog te sa wax toog na maanaam li nga wax xam nañ fi mu jëm. waaw su ma la déggee Balla Gaye. waaw amu ci sens. non Balla Gaye am na sens waaye sens bi am mooy warul imposer Tapha Tine doole. maanaam Balla benn sance la ci làmb ji mooy mu ñëw déglu. bëri expérience. mu ñëw bëri expérience xel. lu mu def ay moytu. parce que ay demee parce que Balla Gaye Balla Gaye moo mënewul 1-0. boo boo ñëwee expérience ngay bëree waaye du sañ-sañ. benn benn boobu rek nga ko jox ci làmb ji quatre-vingt-dix-neuf pour cent Balla Gaye pour cent la ci ci làmb ji. Balla xel bu indee xel xel ah. bu indee xel mën na gañ a combat bi waaye su indee fit mën naa gaañ ci combat bu andee bëre. mën a génn ci combat doole. doole gi nag moom <laughs>

mboolem daan Tapha Tine jamono bii làmb Ndakaaru gii mbër mu ko fi am te amul ci VIP yi du Modou Lo du Eumeu Sène du Gris doo du Balla Gaye du Boy Niang du Ama Baldé Tapha koy nax da koy nax wala nga jumloo waa ji un am na cent trente kilos wala cent trente cinq kilos mais lan moo ko dese maam Thierno ñëwal maam Thierno ñëwal am na am na lu ma dàggal mais waaw teeloo ah, la teeloo loolu am Thierno. xam na moo tax xam na moo tax. Uh-huh. Tafaatine man mm-hmm. Tafaatine laa ci porté de. Mm-hmm. mais Tafaatine dafay. Mm-hmm. maye ci bëre. comme. boo xoolee dernière dernière année yi ñuy génn bëre Tafaatine dafa yéex réaction am dafa yéex. mais mais Tafaatine da ngay dugg ci garde bi dóor ku ba génn muy jekk-jekkal pour pour pour pour pour kor. maam Thierno balaa ngay génn foofu. dafay maye ci bëre comme exemple comme. dafay mooy mooy maanaam réaction am dafa Tafatine boo xàccee di ko dóor comme yaa ngi gis Gris Bordeaux comme ni muy def gardam Gris booy dóor day gis sa coup mais Tafatine boo xàccee di ko dóor da ngay gis day sëgg wala muy jiima paare foofu mën nga koo rek daal mën nga def loo nekk dëgg la day gëm day gëm yow boo ko boo suivre combat yu bari noonu day gëm day gëm day gëm mm. dëgg li dëgg day gëm ba pare Tafatine Tafatine bi daan bi doon bëre Bombardier ak Tafatine bi doon bëre Elton indeetul xeex boobu Tafa léegi dañ koo téyeloo boppam mm-hmm. parce que dafay mel ni comme gars yi ko yu ko indi dañ naan ko noo moytul mu song la bu ko defee moo tax léegi dafay tey xeexatul xeexu déplacé xeexatul xeexu dara day diree ko nànk rek. te boo xoolee bëree mag booy ñaar boo ñaar tuuse na ko bëree mag ëmb seen ëmb seen tuuse na ko mais bu mënoon a liir dëgg taxaw bu mënoon liir dëgg mën a liir Balla Gaye dëgg combat bi mën naa jeex ci premier coup ba Balla bu nee bëri mépp mën na koo dóor mu toog. Mhm. parce que Balla boo xolee bëreem bu ñëw rek pour mu doon rek du ñëw rek day day mépp indil la karam bi nii soo ko mhm. boo bu mu méyee rek boo ko dóoree ko mën na toog wala nga ko ci mhm. da ngaa wax ni mën na ko dóor mu daanu. Mhm. combat bi ñu dañuy jël xeex bi aussi jox ko Tafatine parce que en majeure partie amateur yi. parce que loolu la xam ni li ñu naan li tubaab naan yaa jëme deux cent trois damaa dégg rek sama yoon nekku ci. yaa jëme deux cent trois. Balla Gaye mbër bu mu mës mbër bu mu mës a ñu ne kii moo ko dàq xeex mhm. ba ñëwee ca làmb ja xeexoo mais xam nga tax ji nga Tapha Tine boo xoolee même premier combat dafa sóor Balla Gaye te heure mbër booy bëri moom heure boo ko sóoree doo xeex mais ji tey combat bi comme li Assane wax nii bu ñu woon tey teg indi Tapha bu njëkk ba arbitre di ko ci mu commencé di jam ay gauche jam ay gauche bu saa mu indi droit. su ko defoon mooy ba am na sens bu bëri ci làmb ji. gisoo ni instant bi ba tey daf koy sóor moo waral ba def open press parce léegi daf koy sóor mais Balla tamit Balla tamit am na benn problème. seet naa ko ci si laaj Balla Gaye fi ne daf doon provoqué Tapha pour bëgg a xam lu Tapha indi. Mhm. Balla ba léegi moo amagul stratégie bu muy bëri Tapha fi ne nii. nga ni. ba léegi jàpp ma ne am na stratégie bu muy indee a tafatin amul dara lu mu préparé luy daan amul lu mu préparé luy daan parce que mi ngi doon xaar ci tafatin communiqué yenn communiqué mu xam kii lan la indi ah, moo tax cuku cuku cuku ba sonn ci biir ci biir signature yi cuku na ko ba sonn Thierno nag yàgg Assane nag yéen a ngi néewal doole Balla bi foofu nag doole de mais ci nga foofu siifee foofu laay parce que pelloo la pelloo la